daara yi ci daara yi tabaxal nañ leen ay batiment yu mucc ayib mais aussi yemuñ ci foofu ci programme yi aussi andil nañ leen lu nga xamante ne day permettre xale yooyu ñu leen di former aussi ci français beeg ni ñuy li euh, liifantu lire lecture ak mathématique pour que xale bi su jàngee daara euh, mokal euh, tari ba pare amaale compétence yooyu day tax fu ko neex mu dem ëllëg bu ko neexee mu dem jàngi métier directement bu ko neexee aussi mu continuer ci école système formel bi donc euh, xale yi nga xamante ne aussi amoon nañ difficulté pour am ay këyit pour continuer seen jàng réglé nañ ko mooy affaire euh, état civil euh, xale yi nga xamante ne aussi ñi ngi ci biir l'école bi di jàng te nga xamante ne seen njàng mi demewul noonu dañ leen di dimbali ñu am difficulté dañ leen identifier ñan la dimbale leen pour que ñu mën a réussir continuer jóge élémentaire li ñu naan transition dem aussi enseignement moyen ñu ci bari bu waan sem rek dañuy bëgg a bàyyi. parce que du am entrée en sixième ñu gunge leen nag ba nga xamante ne euh, xale yooyu dinañ réussir pour mun a continuer seen jàng xale yi bàyyi woon jàng ñu jëliwaat leen test leen formé leen dugalaat leen ci système bi ñu continuer seen jàng.